dañ ñëwoon tey ci journée de l' excellence bi am école liberté 1 euh, journée de l' excellence bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo am xalaat bu rafet bi moom mooy AAEL muy l' association des anciens élèves de liberté on euh, j'ai longuement échangé avec le président gis naa ne li ñuy def déjà lu baax la école bu nekk ci Sénégal bëgg nga comité bi teg ci loxo ñoom nag ñëw nañ pour jàppale le comité de gestion de lécole à travers niñ ko defee déjà appuyer leen ci matériel didactique li ngeen gis nii rek euh, seeni cotisation ak yooyu xamuñu sax nu mu demee mais déjà li ñu mobiliser fii day nekk ci ay action yoo xamante ni day tax école bi gën a jëm ci kanam euh, li nga xamante ni moom laa seetlu ñu ne ma édition bii mooy bi fi njëkk mooy bu mooy bi njëkk mobilisation bi toll nii bu ne incha allah yàlla na yokk maintenant comme nag dafay nekk journée de l' excellence di distribution des prix ma doon wax rek ne doon na gën ñu ëpp ci élèves yi ñëw ngir ñi nga xamante ni sargaluñ leen tey maanaam amuñu prix ñu xool seen morom yi am prix bu déwénee ñu jéem a def ni ñoom leneen li mooy li ma gis fii ci association d'anciens élèves ma yéene woon rek lu ëpp ci école Sénégal ñoom it ñu am seen i association d'anciens élèves ñu ñëw ngir jàppale fi ñu jóge woon ñu koy wax le retour au royaume d'enfance sama xel nekk ci Euh, l'association de parents d'élèves wala yeneen association yëpp yi yëngut ci wàllu école fexe ba sax ministère di xool ban association moo ci gën a taxaw moo ci gën a dëgër ba ministère tamit di ko sargal. le 10 mars 2024 si la ñu tënk association bi ñu def ma confiance jox ma présidence bi waaw association bi li ko tax a jóg mooy dimbale suñu école bi nga xam ni ñun fii la ñu jàngee CI ba CM2 mu nekk une donc koo xam ni fii nga jaar. de CI au euh, au cm ba yàlla def la doon li nga doon donc war nga jëloo njukkal école bi ñëw jël li la li la dénk yëpp nga teg ko si école bi pour mun a jëm kanam loolu daal moo tax ni en fait ñu regroupé en association pour mun a jàppale école bi jàppale boo xam ni dina law si élèves yi dina law si enseignant bi enseignants yi dina law si environnement école bi en dehors ça aussi jàppale maire commune bi moo nekk suñu communauté ba pare jàppale ministère de l'éducation nationale ñëpp xam nañu ko état mënu def dara mënu def lépp état mënu def lépp donc ñun comme on dit que l'école appartient à la communauté école bi communité bi moo ko moom donc ñun bu ñu jógee bu dimbale day mel ni suñu bopp la ñu dimbale parce que suñu doom yi ñoo fiy jàngee ñoo fi nekk donc loolu moo tax ñu jóg tey jii pour mun a def loo xam ni dina delloo njukkal vraiment école bi. déjà lu ñu débuté nii rek association bu def trois mois bu defee lii am nañu njott ñun vraiment on fera partie des meilleurs. parce que yombul yombul torop nga organiser wu en l' espace de trois mois nga ñëw tax tak du mel nii parce que bu ñu defee assemblée générale déjà bu ñu paree rek bu ñu déggee déloyance su direction bi wax ni dafa soxla photocopieuse l' association en l' espace de deux semaines indi na photocopieuse école bi jox leen ko parce que vous savez que école yi léegi seen seen euh, seen devoir yi ak seen examen yëpp ay copie la te des fois dañuy am ay jafe-jafe pour def ay copie donc loolu rek association bi taxaw si en l'espace de une semaine loolu waral na ñun suñu taxawaay séntu nañ ko fu raw raw séntu nañ ko fu raw diriger l'ensemble des présidents en fait l'ensemble des associations de des des anciens. yeneen réalisation yu bëgg def gis ngeen école mu mel ni donc la ñu prévoir vraiment defar école bi defar environnement bi ba nga xam ni ku fi dugg di nga xam ni école bi am na ay tànk yu fi jaar élèves yi tamit ñu ñu manqué benn matériel didactique en passant par seen outillage yi. seen matériel directeur yoo xam ni maîtres yi moom la ñuy jàngalee yoo xam ni seen fourniture scolaire la loolu yëpp dañ si bugg taxaw ba pare itam ñu ñu xalaat tamit euh, santé xale yi parce que premier soin dafa baax euh, école boo xam ni dafay am quatre cent élèves yu fa yeewoo war nañu fexe ba teg tey teg benn infirmerie mu ndaw boo xam ni dina mun jël les premiers soins yoo xam ni dina mun a dimbale élèves yi loolu tam nekk na suñu bébé boo xam ni dañ ko dinañ ko dinañ ko bëgg def si bi beneen bi mooy lan créer benn salle informatique boo xam ni dañuy initier élèves yi à l'outil informatique c'est important parce que léegi on est dans l'ère du numérique donc élèves yëpp war nañ mën a tàmm euh, mat machine informatique comme ça bu ñu màggee du ñu am difficulté du ñu am jafe-jafe si loolu même top même chose bëgg nañ fi initier tam aussi ay cours de vacances yoo xam ni association moo ko jël en charge parce que cours de vacances dafa baax mooy cours boo xam ni day law tamit si année scolaire bi cours de vacances bi ñu ko initier association bëgg na fay enseignants yi au moins ñu jàppale élèves ba nga xam ne déwén suy ñëw dina mën a gën a fagaru pare pour maanaam affronter seen classe supérieure yu nekk loolu yëpp bëgg nañ ko def si école bi. lim bi euh, primé nañu 36 élèves mooy en fait l' école bi 12 classes la 12 classes yi primé nañu trois premiers de chaque classe donc si lim bi 36 élèves lañu.